fexe ba màndargaal fii nga xam ne fi la suufus Touba maanaam titre foncier bu dëkk bu sell bi yam loolu moo sababoon ndaje mi nga xam ne doon nañ ko amal tey jii ci altine ji dëppoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2021 ci dara Hizbut Tarqiyyah moomu leen ndaje mi ngi doon am ci teewaayu gouverneur bu région de Diourbel waaye it préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam ñu ànd ko ak maire bu Touba Abdou Lahad Ka waaye it Serigne Kosso mu Serigne Mountakha Mbacké délégation bi ginnaaw bu ji leen ñu réceptionné borne yooyu nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah doon nañ ko defar ngir mu mën a wane fii nga xam ne fii la titre foncier bu Touba yam ba ñu noppee ci cérémonie de réception boobu lee kuréel gi nga xam ne Serigne Mountakha moo ci joxe ndigal ngir ñu taxawal ko amal nañ ab janoo ngir waxtaanee fii nga xam ne fii lañ toll ci liggéey bi waaye it li nga xam ne moom la ñu dëgmal gannaaw boobu lay jataay mboolem kuréel gi ànd na ñëw ci Serigne Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moom mooy porte parole yoonu murit waaye it di jëwriñu liggéey bi ngir gaaral ko fi nga xam ne fi lañ toll ci liggéey bi Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo financé borne yi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah liggéey nañ ko dellu na ci rafetaay ak sell koo xam ne borne yi nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah defar nañ ko am na ko def nañ état di lieux ci titre foncier bi tàmbalee ci borne bi njëkk wër ko ba dellu siwaat ci borne bi biñ tàmbalee woon muy 74 kilomètres yi xool nañ ko gis ne borno yi dafa xawoon gàtt yenn yi dafa dafa dafa réer ci loolu la gouverneur xalaate ne dañoo war a defaat yeneen borno ñu waxtaan ba ne ak service technique yi ba def ba ba tënk loolu euh, jox ko sa jius ñoom ñi muy isbu yi ñu ñu xalaat nan lañ ko war a defee biñ leen ko joxee def nañ ko defin woo xam ne wu mucc ayib la ndax benn bu nekk def nañ ko war na huit cent kilos daal daf na hauteur deux mètres loolu ba nga xam ne yaakaar naa ne fu mu xas tegu yaakaar naa ne doot foo taxaweti seen ko foo jubati dëkk bi boo duggee titre foncier bi da nga xam ne dugg nga titre foncier bi booy génn ci dëkk bi boo génnee booy tolloo boto porno yi da nga xam ne génn nga titre foncier bi te defe naa ne loolu nga ñu uh, santoon ci turu sëñ bi ne nañ ko defal mandargal ko ba muy lu ñëpp xam ba kenn dootu ci mën a dugg Euh, wala kenn dootu ko mën a jeg wala ko ko jegeete wala nga dugg ci xam ne yaa ngi ci li nga xam ne mooy biir titre foncier bi defe defe nañ ko noonu loolu loolu nag biñu demee réceptionné nañ ko borne yëpp noppi na war a toll ci cent cinquante six la woon léegi ñoom def nañ ba cent cinquante neuf yoo xam ne nii pour ngir am na supplémentaire boo xam ne bu ñu demoon ba ba ba ba ci ci quantité bi ñu ñu juum ci du du tax ñu ñu wutiwaat ko. li nga xam ne mooy gouverneur bu Diourbel di góor gi mbay dellusi na ci liggéey bi am ngoo xam ne am na ko solo waaye it li nga xam ne mën na koo jariñ dëkk bu sell bii. Touba bëgg nañu mu nekk ci dëkk yi gën a moderne ci àdduna ci cité yi gën a mën a moderne yu gën a organisé ci àdduna te loolu bu ñu ko bëggee faw ñu saytu suuf sa fa am. loolu la sëñ bi xam moo tax mu santewuñu ko ma ànd ak service technique yëpp ak autorités yi préfet sous préfet ak urbanisme cadastre ak euh, ñëpp ñi mu war àndal service technique yi ñu saytu ko. Touba euh, gis nañ ne sax li ñu dëkkewul moo ëpp li ñu dëkke te loolu yaakaar la waaye ginnaaw bor bu ne mu ngi fay màggee ci dëkk boo nga xam ne dafa nekk dëkk booju yaakaar. Euh, xalif bi tam bëgg fi am ay projet ñu defaraat dëkk bi bëgg ci bëgg mu jëm kanam faw ñu saytu loolu loolu nag moo tax ma ne njariñu liggéey bi dëgg-dëgg ci kanam lay doon ngeen dañ koy gën a xame ji fekk at incha allah ah di xam ne loolu loolu nag euh, boo xoolee assainissement bi daanaka tey ci suba la ma directeur général ONAS wax ne ma dina ñëw fii pour plan directeur d' assainissement faw ñu xam fan la canalisation yi di jaar fu ñu koy def tiwo ndox yeeg fii loolu lépp faw ñu rëdd ko ci quartier yeeg fépp waaye plan directeur d'urbanisme daal moom dëkk boobu boo xam ne dafa bëgg a jëm kanam mën a bokk ci dëkk àddina yi gën a lim te loolu lañ bëggal loolu la sëñ bi bëggal Touba foo mu mën a foo ñu am ko waaye lii ñuy def nii mooy mooy mooy mooy lay mooy laytaay ji loolu dina ko yombal dina ko dëgëral ba nga xam ne du am benn problème suñ si jógee itam dañu woo waa waa ANAT agence nationale d'aménagement du territoire ñoom ñooy gën a leeral diggante nag euh, commune Touba ak yeneen commune yi waaye déjà rek jël nañ ay mesures ñun administration euh, ma jaarale ko ci préfet wax ne yeneen maire yi nga xam ne dañu lëkkaleek Touba yëpp dañu dañu dañu dendee bu kenn defati benn délibération tant que loolu ñëwul déjà dañu gelé dañu arrêté ñoom bu fi kenn joxee ti suuf lu sës ci euh, tu commune Touba parce que dañuy bañ bés bu ñu leeralee ñoo ñu ñu jox féete féete Touba te ñoom ñoo leen jox kayit moo tax ñoom nangul nañ ñu ko nee nañ dootuñu defati benn délibération loo xam ne daal sës na ci suufal Touba loolu bokk na ci sécurisation foncière bi nga xam ne sëriñ bi demandé nañu ko woon fa dëgg yàlla ñu ngi ciy dox ay jéego. sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khader mi nga xam ne moom moo yor kàddu xalif général des mourides ginnaaw bu mu dellu see ci cosaanul titre foncier bu Touba bi la ko tàmbalee ci sëriñ Modou Moustapha ba ci sëriñ Saliou waaye it egsi ba ci sëriñ Mountakha yëkkati na it ay kàddu cant jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo seexoon liggéey bii. ñu leen di dellu am nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fii sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak moom mi nga xam ne ci gis-gisam bu sori ci ci la xalaate ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy def tey ndax moom yàlla dafa def ni ngeen ko xamee rek waxtu ne yitteem jëpp mooy di xalaat nu dëkk bi gën a yaatoo nu gën a ñoŋe nu gën a dëppoo ni ko borom bëgge ci biir xalaatam yu kaw yooyu nag ci la xalaate lii ngir bëgg li nga xam ne mooy titre foncier bi nga xam ne ñu ko sëñ Koso waxee léegi mi ngi tàmbale woon sax ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mu defoon ci li wër jumaa ji ba agsi ci Serigne Saliou Mbacké mu yóbbu ko ci fi mu àgg nga xam ne jël na mbalum suuf suba sëpp ba jëlaale lu bare bari ci loo xam ne bokku ci woon ci atum 2000 kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi lay yëkkati cant ak ngërëm di ko ci sa loxo li ma la ko waxee keroog bi ñu jotantee ndax sëriñ bi moom itam jëpp la ci jiitu mooy sàmm dëkku Tuubaa bi ba ni ko borom bëggee dara bañ koo ruur waaye dara bañ koo ñàcc kon képp koo xam ne gis na ne yaa ngi koy jàppale ci taxawaay boobu fu mu toll di la sant di la gërëm te di la ñaanal te moom nag àgg na ci borom ko xam ne waxuma ku mu wéet ñaanal la ci boromam waa ko waaye ku xolam sedd ci yow rek faaw yàlla sedd soxal doy na la sëkk cant ndax jëkkoo fi am na jure fi jiitu waaye bu demee ba tànn siñ ko sumi nga xam ne ab taawam boole ko ki ndaw yóbbante fa ko na yë ko ne na yow ba bu fekk la njaarim sant la gërëm la loolu doy na sëkk médaille ceew kon ñu ngi la ñaanal bu baax suñu borom gën laa dimbale ba yéen ji xam ne am na ko ceew te liggéey bi ngeen seq tax yàlla dimbale la ko ba lépp àgg. boo fi jógee jóge fi ci yokkute mhm. yaa ngi ñu ko seqal ñëpp di préfet ak sous-préfet euh, Serigne Abdoul Ahad yow itam ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañ ni sax waru si laa sant ndax ni moo koy faral di wax rek euh, commune bi àll la sëñ bi yow moo fa nekkee sëriñ bi la fa teg kon bu la Serigne bi santee wala gis bëgg-bëgg suñu nga dàkk ko def ko kon loolu sabab mu koy defal waaye ñu ngi lay ci sant ci turu sëriñ bi. la ñaan itam yooyu yàlla gën laa dimbale ba nga àggale sa mission ni nga ko bëggee di gërëm ba wax sëriñ Youssou Diop mi nga xam moo jiite daara Hizbut Tarqiyyah mooy itam ci yitteem ak positif ak taxawaayam ndax bi fi sëriñ aatu bàyyi ko ba nagant itam fekk na ci nekkam li ëpp ci liggéey bi mu xamoon ko ndax moo ko daan doxal kon looloo war a liggéey bi yomb ci waaye ndigal yi ko fi jox yëpp itam bu ci ne wane na ca taxawaay bu ëpp bañ ca daa def ndax ba ci jiitu mooy bii foog naa ne ci liggéey yu ko sëriñ bi sant la kon loolu itam taw fii xam ju rëy moom itam kon liggéey bi daanaka sori na xëy na àggagul nag kon ba lañ ko jeexee dañuy bàyyi rek ba ñu samp yu ba réception ko lépp jeex mm-hmm. waaye lii sëñ léegi rek ci yéeg-yéeg bi ñu ci am ak yéeg-yéeg bi ci bi yëpp am ak yéen ñi nga xam ne yéen seq liggéey bi loolu doy na sëkk kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi di ñaan rek lépp àgg te li sëriñ bi di séntu yaakaaruñ ci ñëpp ba mu yab yónni ñu ngir ñu doxal ko ci mission bi yëpp sotti ñu day ci tawfeex day ci ngërëmam moom ndax buñ ci dajee ngërëm rek day ci ngërëm Sëriñ Tuubaa te ngërëm Sëriñ Tuubaa rek la ñu sakku xanaa di fàttali rek ne bile dajee moo nekkoon ñeenteel bi yoon ñuy daje gannaaw ba nga xam ne sëriñ bi joxe na ci ndigal ñu amaloon am dajee ca gouvernance bu Diourbel waaye it ci résidence Cheikhul Khadim bi nekkee Touba daal di ci teg ab visit ci fi nga xam ne fi la titre foncier bi yem di xam ne rek jéego bi nga xam ne moom lañ ci war a teg mooy samp gi nga xam ne war nañ ko samp borne yi ñu jàpp ko ci le 26 avril bi nga xam ne moom lañ dëgmal